bi laay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse il se kaas kafe nga guux bala ngay naan bay si mu leex moo wax xew ci réew mi sunu gaal gi yëgle kay ni ma moom kay le chef de l'ONU toll nii tembe la muy réclamer mooy le droit des sénégalais manifestation yi pacifique yi ñu wàcc leen ñu koy def ñoom ñi ko bëgg a amal ñoom day la ñu fësal xamle ko mooy mboy la seen sénégalais bu ne ci réewum askan sunu gaal gi am nga droit laa la wax dox doxum ñaxtu pacifique te doo xeex doo sànni doo def dara laa wax Stéphane ne nañ ci jël matukaay ci ni mu gën a gaawee nit war naa mën a mars jóge këram ba ak gaat këram te kenn du ko faagaagal ba di ko boo mu cay ñàkke bakkanam yëgle kaay gi ni ma waa société civile nee ñu reculer pour mieux kiliwa yi waaye bàyyi wunu njàng mi ma ne nee teg nañu arme yi waaye wàccunu guerre bi ñoom waa société civile tey la ñu fësal xamle ko mooy samedi ak jàmm ak salaam jàngoon laa la wax la di seet fu sini nañoo wàcc ci mbedd yi ñoom day neeñu seen ndoxum ñaxtu bilee dees na ko amal nañu amal waxtaan ndigal jub na enquête yëgle kaay ni ma fi toll nii tembe kay diine ja commencé naa wax nag ci lu jëm ci wàllum tension bi am ci réew mi politique bi ni mu demee le soleil yëgle kaay ni ma teewoon pour le dialogue fi toll nii ñu bëgg mooy nu waxtaan li quotidien yëgle kaay ni xam ni moo di Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade mi ñaan ci réew mi askan sunu gaal waa Tiwaawan itam ñuy ñaan ci réew mi ma ni fi mu toll nii itam kay dialogue boobu la ñu yitte woo yëgle kaay gi ni ma Tiwaawan na ngay renforcer njiitum réew mi président Macky Sall ci toogu waxtaan gi nga xam ni moom la woote nee na mboole ñi nga xamante ni ñoo nekk ci politique gi moo xam ci kujje gi mbaa ci nguur gi ku ci njiitum réew mi tàllal loxo ni la kaa waxtaan doxal su la yëgle kaay ni ma jàmm ji kay ñëpp kaa soxla ci réew mi askanu sunu gaal gi ñoom de nee ñu saa sunu jàppee manifestation seen xel ak seen fit du dal tiit laa la wax ndax yàq gi nga xamante ni moom la ñuy yàq seen i matériel ak seen i bien laa wax maa la wax lii yenn service yi kay xale yi dañ koy daw dëkk laa wax yàqate ko yàqeet yenn station yi noonu koy fëpp yi kay du ñu am xaaj ak seen ba ci transfert d'argent yi gone yi du ñu wàcc dara l'indépendant yëgle kaay ni ma loo wax rek am loo wàcc ci réew mi gaal ci fi jol ni tembe ne ko nga ni mu ne ma crise politique Macky sous na ci téléphone ki nga xamante ni moo di le secrétaire d'État américain Anthony Blinken moom de la ma wax njiitu réew président Macky Sall mooy nga gaaw ci nu mu gën a wax amal ay élection libération yi lekaay ni ma ak lu mën a xew daal waa uni ci jëmi boppam fi ni tembe daal dina ñu jóg-jóg taxaw nee ñu nag na lépp daal leer naa ñu ne aw bëccëg ñi nga xamante jot nañ leen a faagaagal fii ci réew mi askan sunu gaal na leer wax nañuy tem ci fitna gi nga xamante ne moo ci réew mi ak mars gi ñuy ka ngawti ngawtee moo est-ce que rek daa di faatu moor du xam nga ko moom njariñam day tax koo bari wal fajiri quotidien yëgle kaay ni ma fi dool ni tembe nag njiitum réew président Macky Sall fu ne man ko fay jaar ay buntu wu ngir rek mën a amal dialogue ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko yitteem jépp mooy waxtaan ak Ousmane Sonko ma ki nga xamante ni mooy changeur la yaa gi ne Ousmane Sonko amul benn intérêt waxtaan ak négocier les éco yëgle kaay ni ma ci joojale jamono waa Macky Sall dem yor yor yëgle kaay ni ma waa Pastef bu Ziguinchor ñoom la ñu fësal xamle ko mooy libération Ousmane Sonko ak ñu cee kontaan te ci waaye nag dialogue moom mukk duñu ci ànd ab Samba Mbow jël kàddu ca Les Échos yëgle kaay naan xanaa xamoo leen ni nañu faru ci réew maskero sunu gaal gi waxtaan a tax ñu falu xolal ma wàdd mi waxtaan ak dialogue a tax mu daal jël réew mi Sonko ci jëmi boppam daa war a dem ca dialogue ba ngir défendre président Ousmane Sonko daal ne moom ab duwaaram mooy nekk ci wetu askanu sunu gaal peuple bi féeteeg ñoom mooy yitteem waa aar sunu élection moom seen yitte mooy di jàf li nga xamante ni mooy mars bi ñu bëgg a def ñu ne dinañ ko def te niki le 17 février gi ñu jëm di samdek jàmm Abdoulaye Wade ak Abdou Diouf mii ñaan jàmm ci réew askanu sunu gaal Abdou Diouf yëkkati waati kàddu gën a leeral li nga xam ne moo di position moom Abdou Diouf day ma ngay di xam le naan bu làng gi daaree ba làng gi daar nag bàgg war mbaam ñenn rek ñooy taxaw daal di def li nga xamante ni moo di tracé yoon wi nu war a aw muy waa conseil constitutionnel ñoom ci seen jëmi bopp ñoo war a jël seen i responsabilité de jël seen i laa la wax ferme et ce que yëgle kaay ni ma la jël kooko Boubacar Camara lay wuyoo moom biñ doon tudd ci wàllum négocier yëgle kaay gi di les éco ne Boubacar Camara weddi na Karim Wade ba mu set laa wax laas yëgle jox kàddu ko Thierno Alassane Sall mun a Abdou ak moo ak Abdoulaye Wade mii nag naan di wax waxi dialogue ak waxi amnistie dañoo mal placé laa wax ñëpp war a wax ba mu des a ne nanu toog waxtaan ngir péncoo réewum askanu sunu gaal jàmm man fi am ba faw te dëgg-dëgg sëriñ bi dialogue la woote waa ONU moom la woote mooy nan lépp leer naa ñu ne aw bëccëg ñi nga xamante ne ñoo faatu ci ñogente yi manifestation yi xëccoo beeg ciicoo beeg mbaaloo bi ci diggante woy fippu yeeg takk der yi ñi ci faatu nee na leer enquête bi moom day am ñoom day nee nanu ko ubbi bi yëgle kaay gi di deux minutes pour lire l'essentiel Ben gi ma nga naan ma la attaqué journaliste yi di taskatu xibaar yi ñoom taskatu di dànkaafu daal di koo tëkku tey réew mi ana lan mooy solution xam nga ña nga xam ne ñoo di ñay ya waa Côte d'Ivoire gi génne woon askanu sunu gaal ci Coupe d'Afrique kër lañ leen jox wópp la wër bu ci nekk la wax ñu neexalee leen ko ay waay ndaw sàmm ku ne yaa nga ak say koppar koppar jural na coow lu rëy ki nga xamante moo ne woon day bokk ca tontine ba ay waay kaay bàyyi leen ku leen message ni tontine rek ngeen ni ca sambax réew mi quotidien yëgle kaay ni ma kii de na ñetti million laa ci tontine bi seetal ma li la luy seet di mbir mu doy ñi nga xamante ni ñooy yar ay ginaar ci réew mas kono sunu gaal fi mu toll ni tembe ci guuta la nu ne tagga témbe l'observateur yëgle kaay ni ma ca zone des ñaay ji ñaari fan dong ñàkk na trois mille ci ay ginaar yëgle kaay gi ni ma six millions francs CFA dem ni fourage daal di xëddeen tàkk naaw ni feu de paille ma leen ba suba ak jàmm ak salaam déglu seen revue de presse wolof ak Fall de Mer cakin président Abdou Diouf nekkoon fi njiitu réewum Sénégal ne ñu bari dese nañoo xam bataaxal bi mu bokk xaatim ak président Abdoulaye Wade te mu fees ni ci démb mu ne bir na ko ni conseil constitutionnel bi nga xam ne moo ko taxawaloon ca atum 1992 moom képp mën a wax ci calendrier électoral ak ab mandat présidentiel parlement bu CEDEAO di woote ci ak dal ak waxtaan ayu bés bee di ñëw dinañ fi yebal ab mission député yu fare ci yeewi askan wi ne bala ñoo waxtaan dañoo bàyyi Ousmane Sonko ak ñi nu ko jàppandooloon te ñu nekk ca kaso ba amnistie boobee kon euh, ñuy rumandat la ñu faree ca Mbour kon nekkoon kon euh, bu mu jëm kaw muy Ousmane Sonko di keneen ku nu euh, jàpp fawuñu leeral mbir yi ndax dafa am ñu ci ñàkk seen bakkana ki ñàkkoon bakkanam barki démb kon ci jaamaloo yamoon ca Sànnaar di étudiant bi leen di Alpha Yero Tunkara ak njabootam ñoo mer ba futtu kon gën a nekk ci aw naqar ne dañ leen a bañ wax kon la autopsie ba daal di wax te itam ko ba fii teguñu dara lu leer ci seen loxo. internet bi ñu dokk am na ñu jéebaane nguur gi ca cour de justice bu CEDEAO borom taxi ci liggéey ne ñoom it lottu nañu Gédé Daaru Marnaan Xayra ak Daaru Xuddus koñ la yu nekkee ca Touba ay weer a ngi nii dañuy rotaani ndax ñàkkum ndox tax nag ñuy yëglu ca kanamu kilifa diine yi ak kilifa aada ya fare kon foofee ca dëkk bu sell ba sunu gantay nar a doon Omar Cissé nekk directeur exécutif ARCIS di kuréel gi ëmb commerçant ak industriel yi nekk ci réew mi nar a dellu si ci ni nu dugale seen loxo ci kon coowul politique bi ak li ci nar a am ne njeexintal bu waxtaan ak Ibrahima ba noppi xibaar yi day buur ñu ñaanalante Abdou Thiam moo nekk ci machine bi c'est pour Serine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 kon moo mën a leeral mbir mi ak coow li ci dal di ah, jip ndax ne kon xam na la ca nekk ndax moom moo ko daal di euh, taxawaloon ca atum 1992 Ibrahima Diame. ginnaaw déclaration bi mu signé ak ancien président Abdoulaye Wade ancien président Abdou Diouf daa di signé beneen lettre bu nga xamante ne moom kese moom moo ko bind moom nag muy xamle ne mu ngi regretté bu baax a baax serment bi nga xamante ne defoon na ko ne dootul commenté lu dem ci wàllu dundu politique Sénégal loolu nag mu ne li tax mu deltu gannaaw ci loolu. ne moo di ne réewum Sénégal ci gis-gisam mu ngi dundu crise bu xóota xóot Abdou Diouf ne mu ngi ñaawlu bu baax a baax di nga xamante ne lettre bi mu bind ak Abdoulaye wat nit ki demb ñu bëri comprendre ñu ko mu mel ni kon kuy andi ay précision mu xamle ne conseil constitutionnel kese moom mooy institution bi nga xamante ne moom rek mu war a wax droit jël décision yu nga xamante ne day tegu ci ñëpp lu jëm ci wàllu calendrier électoral ak respect durée mandat président président Abdou Diouf ba tey ci lettre bi nga xamante ne moom kese moo ko xaati muy woo peuple sénégalais classe politique bi ak dirigeant yi ñu def preuve de retenue et d'intégrité di appliquer bu baax a baax disposition yi nga xamante ne constitution moom moo ko bind ngir préserver liberté publique yi nga xamante ne réewum Sénégal am na ko te mu dem notamment ci wàllu démocratie. Ibrahima Diame doon jàngal bataaxal bi président Abdou Diouf daal di euh, fésal parlement bu CEDEAO ci ak dal ak jàmm ñi nga xam si ñoo fare ci làngug politique yi ñu ni sax euh, ñu daal di yabal ab mission ci ayu bés bële di euh, bi ñu dëgmal su ko defee waxtaan yooyee lu ko gën a yombal député yi fare ci yeewi askan wi nag nee ñu ñoom euh, ngir ñu soobu ci ay waxtaan faw ñu génne Ousmane Sonko ak ñi nu duppee ñoom ay détenu politique mission parlementaire bi kon daal dinañuy waxtaan ak groupe parlementaire yi ak itam ñi nga xam si ñoom la ñu daal di gàntal seeni candidature Abdourahmane CEDEAO bi di joxe xalaatam ci li mu gis ci Sénégal Sidi Mohamed Tunis mooy njiit wi. One thing though I'm happy for Uh, mais li ñuy dégg ci rajo ak yi ak li nga xam ne moom lañ fekk ci réew bi mën nañu wax ni lu wutee la loolu dalal na suma xel. Oh, sont différentes de ce que nous de nos yeux député CEDEAO yi di woote ci dal waaye tamit jàmm li ni mel sax a tax ñu woo ci yépp ngir ñu mën a waxtaan ci loolu sax parlement CEDEAO bi di xam xamle ni dina yónnee ab mission Ndakaaru semaine bii ñu jëm ngir ñu yombal waxtaan yi. la mission. ñu ngi ñaan képp ki nga xam ne yaa ngi yëngu ci wàllum politique wala boog am nga kàddu ci réew mi nga daal di bokk ci waxtaan bi waxtaan bi nga xam ne dinañu fexe ba ñu am solution ngir ñu mën a ay élection ci anam gu jàkk élection bi nga xam ne ñëppay bokk waaye mu doon ay élection yu leer te wóor. for the organisation of open. pour l'organisation. credible. d'élections. inclusive. ouvertes. and transparent. présidential elections. et transparentes. député CEDEAO yooyu nga xam ne daje nañu ak ñetti groupe parlementaire yu ne ci assemblée nationale di xamle député yeewi askan wi li nga xam ne loolu lañ leen dënk. Euh, député yi ànd ak Sonko ñu ngi ñaawlu yenn saay taxawaayu takk der yi ah, saa yu manifesté amee li ñu bëgg tamit mooy képp ki nga xam ne teg nañ ko loxo ñu daal koy bàyyi waxtaan naa loolu ak euh, njiitu assemblée nationale ginnaaw ga la ma daal di wax Macky Sall boo gisee mu woote waxtaan loolu noonu yëpp da ci war a bokk. Nancy, président Macky Sall, le président Macky Sall asking for this national euh, dialogue. appelle à ce dialogue national. ñaari fan liggéey yi nga xam ne amal nañ ko tax na tamit ñu daal di daje collectif bii nga xam ne ay candidats recalés lañ leen di wooyee ñoom it daal wax luy seen bébét. jaajëf Abdou Rahman Diallo langoog politique gi ak ni mu yëngoo jamono ji moo tax itam ba euh, njabootu ko Omarienne famille Omarienne daal dinañuy euh, woote ci ak dal ak waxtaan Thierno euh, Cheikhou Oumar tal moom doom la ci xalif bi ñu teewlu kook Nafisatu Ndiaye. delloo ngen leen seen xel yéen waxtaan Sénégal nekk ci jàmm Sénégal jàmm rek la xamoon depuis politique kon nag xalifu diine yi ñoom it ngeen bàyyi leen yéen su problème ñëwee na xalifa diine yi wax su lu baax ñëwee ngeen ne xalifa diine yi waruñu cee wax pourquoi pourquoi dañuy wax de doo leen yàq Sénégal ndax moomu leen ko moomu leen Sénégal kat soo leen ko bëggee yàq ñu wax ak yéen loolu nag man maa ko sañ a wax lu neex waaye ak mu mu la nga xalaate toog leen ngeen waxtaan mooy dëgg ku leen waxul toog leen ngeen waxtaan nax na leen nguur nguur yàlla moo koy joxe soo bëggee nguur nga ne fitina nga koy amee du dëgg réew yi takk yéen politiciens yi nag ngeen bëgg xamul Sénégal xamul ay ñaan leen yàlla jàmm soo leen woowee ay boobu nekk li dal Mali dal Burkina dal pays yeneen yi ba ci ñi ñi doon xeex yëpp tey kenn ku ca nekk tey am na loo ñàkk dootoo ko amati ñun Sénégal loolu delloo si leen xel yi président Macky Sall yow dañ lay ñaan nga xool nu mu gën a rafete ak ni ni jullitu réew mi soxlawe nga doxale noonu mbir mi nu mu gën a gaawe opposition bi yéen it amul ñu woo leen ñëw leen ngeen dialogue ngeen bañ a dialogue ji loolu tamit du yoon du dëgg du yoon toog leen ci benn taabal ngeen waxtaan bugguñu suñu réew mel na comme Mali dëkk yi nga xamante ni lépp ay militaire ñoo ko yor ñun ñaan nañu loolu yàlla ci Sénégal kon nag dilloo si leen seen xel yéen politiciens yi luwaa yi ñun xamuñu si dara suñ nee ñu ne article nangam article nangam ñun sëriñ dañoo xam loo ñun xamuñu article ñun article yàlla la ñu xam. tey jii ca Mbacke dañ faa bëggoon amalum ñaxtu gannaaw ba lañ ko dàq ba ko préfet ba gàntalee tax nag Baye Fall taxawoon temm ca Touba ne moom dootuñu nangooti kenn kuy manifester dugg ca biir euh, dëkk ba itam di euh, xotti warma ya ñoo leen nag ñu ni lu len leen jaral dina leen ko jaral ñoom itam ngir euh, samo ak na ko Serigne Mountakha Bassirou Mbacke daal di waxee Papa Balla Gueye. bu dee gëm nañ sëñ Touba lii sëñ Mountakha wax ñu ànd seeg moom mënuñu ne gëm nañ sëñ Touba ba noppi weddi sëñ Mountakha loolu mënul yi di sëriñ Dame Soda Fall ci teewaayu taalibe yi nga xam ne pare nañ ngir jàmmaarloo ñoo daal yëkkati kàddu artu ñi nga xamante ne ñooy manifester ci diwaanu Touba. képp kuy politique wala ngay manifester booy boo nga fas yéene dafa ji mbaa feneen waaye képp ku ko defati ci tuuti Touba donte da ngaa jéggi rond point bii deux mètres danañ jàmmaarloo ak yow sëriñ Dame Soda Fall di xamle ne askanug Baye Fall gi yëpp pare nañoo def lépp lu ñu mën kon bañatuñ si dara nag waaw moo tax ñu jóge nii moo tax ñu jóge nii fàggandiku nag pexe yu ñu mën a jël rek jël nañ pexe yu ko raw te ëpp nunu pas-pas kon nag ñoom nañ xam ne li sëñ Tuubaa bëgg tënku si mooy seen njariñ suñu ko defee muy jàmm suñu ko defut it rek si mujj ñu taxaw tem ngir fexe saytu bu baax a baax war may dëkk bi lay njabatug Baay Faal gi nag ñu ngi dellu di woo woy politique ak ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci dëkk bi ñu jox cër bu baax a baax xalif général des mourides Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru mi xamante ne mooy Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf Papa Balla Gaye Tuubaa Radio Futur Media Adja. jaajëf Papa Balla Gueye ñu daal di euh, wëyal xibaar yi guddi gi ci rajo Futurs Médias bi juróom-ñeenti waxtu jotee ba tegal juróom-ñeenti simili. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wér te wóor. hôpital Malick Ndiaye rafetlu kon taxawaayu ay avocam ci kon eh, ni ñu eh, taxawoo ñunu tegoon loxo kon eh, fële ca Jolof ga mu fekk baax tolloon ci fanweer ak ñaar ci manifestation yu mujj yi loi d'amnistie bi nga xam si nag ñi ngi koy ruumandaat fële ca diwaanu Mbuur ñu bare bari ñu suñu reporter taseel li ñu xam ne nag moo di ne mbir moomee ñoom àndunu ci ndax nag daa am ci manifestation yooyee ñu ci seen bakkan muy Ousmane Sonko Sonko ba ci ñeneen ñi ñu tegoon loxo faw yoon daal di leeral mbir mi reportage su Ndeye Mati Dieng croisement Saly yoon bi dañu ko gën a yaatal garab yi ñu dagg leen yenn ci jaaykat yi ñu jële woon leen fi waaye dellu si nañu xale bu góor bi le nag ci buntu këram lañu ko fekk muy xamle ni àndul benn yoon ci ñu amnistie kii di usmaan Sonko maanaam daal di teg lépp ci suuf. yabal la loolu ay caaxaan la ñoo tuddee affaire bi problème Sonko ak manifestation yeeg affaire ay jigéen non non non man gëmoo loolu tey que chacun paye ce keneen koo xamante ne moom it bëggul wax lu mu tudd waaye xalaat lu méngoo que lu ni mel la. mu sol tubéy ak ti shirt bu verte xale bu góor bi le ne moom dafa bëgg lépp lu ñuy toppee ki la di Ousmane ñu daal di koy leeral kenn ku nekk la nga ca def itam nga fay ko ba mu mat. bakkan si rot yu fi am ak perte suy yëpp ñu xëy bés ne man je me dis dañ parce que cër amatu ci def ñoo xam ne kii moo def buñ ko war a teg ay ko nga xamante ne jot nañoo wax ak ñoom di sàkku ci way politique yi ñu daal di gën a wekk askan wi. seen dil ñoo bëri seen dil ñoo bëri jàpp ñu comme ay comme ay mala loolu du yoon lii ay dil la Atépa fii kii karab ñun son du pare mais il faut que Sénégalais yi xam ni que c'est pas Macky Sall seulement qui est derrière ndaw ñi tamit gën a yeew gën a ubbi seen nopp di déglu di xool barki dem boo njaay rek lañ ko fi gis ki taxawoon fii naan Macky dimanche dama koy dem génne palais kooku dimanche la ko Macky Sall recevoir te bu mu génnee dafa changé ay waxam ña nga xamante sax Ndeye Mathi Dieng Mbour jaajëf Ndeye Mathi xibaar bi ñu fi dab léegi kon euh, di bataaxal bu jóge ci xalu général des Tidiane moom itam nag euh, muy daal di euh, woote ak dal ak jàmm waxtaan rawatina nag langu politique gi ak ni mu yëngatoo nekk kon bataaxal bu bàyyeekoo ci Serigne Babacar si Mansour moom mooy xalu général de Tidiane loole des na ci dellu si ci ni mu gën a yaatoo ci sunu yeneen jotaayu xibaar njabootuk étudiant bile di Alpha Tunkara moo faatu woon kon ca université Gaston Berger ba nekkee ca Ndar Géej ci manifestation yu euh, mujj yi euh, fi mu toll nag ñoom euh, la tukkee ci autopsie ba la ni laaj ndax ne ba fii nag dañ leen a waxul dara lu leer te itam nag tegunu dara ci seen loxo Abdoulaye Djibril Silla moom nijaay la ci aji tem gi ñu teewlu kook xujja ja résultat autopsie bi génn na mais dañ ko nangul joxe ñun suñu bëgg-bëgg tey ji mooy ñu jox ñu suñu néew ak suñu résultat autopsi ñu mun koo denc ci anam yu rafet. d'accord ñoom nanguwuñ leen jox euh, résultat autopsie bi ban argument lañ teg ne moo waral li ni mel. amul benn argument bu ñu parce que ñun on n'a même pas par raport à à ce problème là. amoon kenn ku ñu ne voilà lii moo tax doole a joxe résultat autopsie suñu loolu suñu droit la plus absolu naka la suñu doom la deewee euh, à l'université de Saint-Louis naka la deewee loolu moo ñu actuellement. coowul manifestation yi nag saa su euh, jiibee ci jamono yi ñu weesu lu ñu nemmeeku moo di euh, nguur gi day jël dogal daal di topp internet bi ba ci fii ñuy waxee ak yéen kon dañ ko daal di def loolu nag moo waral ba kon Afrique ak ay taskatu xibaar yoo xam ni Moussa Ngom ak Ayoba Faye nemmeeku nan leen ca daal nañuy yóbbu mbir mi nag ca kanamu cour de justice bu CEDEAO ndax nag mbir mi ak jafe-jafe yi ci jànkonteel Cheikh Fall moom mooy président acti ak Afrique Tivis ñu teewlu ko ci téléphone beeg Khoudia Dia. Sénégal da mos a bokk ci dëkk yi nga xamante ni dañ leen di xañ seen ak seen yelleef ci wàllu internet te internet nekk droit boo xamante ni kenn waru ko laal ndax ni ñu amee droit ci am environnement bu ñuy dund am. ci ndox am accès ci courant noonu la ñu amee droit am accès ci internet juin juillet 2023 ay manifestation taxul ñu coupé ko ñu dellu si fa fan ñu génn ñu coupé waat ko ba ci Dembo Ndiaye bi amee manifestation ñu coupé te tey jii maa ngi wax ak yow may wax ak yow am na ñu nekk ci biti mënut ñoo def benn opération mënuñu def seen liggéey parce que amuñu internet lu tax parce que nee nañ dañuy bañ ay risque de sécurité nationale ak ay risque de de propagation de message haineux li tax ñu def ko itam dañoo am ay ak ak yelleef yoo xam ne nii yoon daf ñu ko may te yoon yooyu Sénégal dafa bokk ci nit ñi ko nangu te yoon yooyu mooy CEDEAO ak protocole yi nga xam ni moo tënk réew yi ci yoon boobu daa mës daan ay dëkk nag yu yu mës a euh, violer internet ak censurer réseaux sociaux yi ci loolu toog tëgg ba ñu nit ñu dem yóbbu Sénégal ci yoon ba tax euh, yoon woowu mën a euh, ay daan Sénégal ba pare supp ko ci ne war a tuppam benn yoon droit di tuppee internet ak service yi ñuy am ci réseaux sociaux yi pour Sénégalais yi nga xam te ni ñoo koy jëfandikoo ñi nga xam si ñooy liggéey ci internet bi nag rawatina dawalkat yi taxi yi ñoom saa suñu ko dogee daanaka jafe yu méttee métti lan ciy jànkonteel tax nag ñu sàkku ci kilifa yi ñu leen ciy xalaat reportage Ami parce que dégguma fi événement yu grave wala manifestation ma jékki-jékki à neuf heures et demie ñu coupé ko subitement j'ai allé garer ma voiture. connexion internet doon lu Mamadou Ndiaye di jëfandikoo ngir liggéeyam ci biir otoom bi mu gaaree ci benn.